tey jii dañ fi dajaloo tey en tant que ndawu parti réew mi euh, pour ñaax askan wi nga xamante ne ñoo nekk ci commune bi euh, yaatal ko nag ba ci géejawaay gi yëpp askan wi ñu mu concerné mooy mouvement yi association yi ak même alliés yi nga xamantene ñom lañu la di liggéey ndax dafa am ay fonds yo xamantene ne euh, son excellence monsieur le président de la république Macky Sall da ko teg ci dëkk bi né nañ ci dimbali ndaw ñi ak ñi nga xamantene ñoy soxna yi ñu mëna def sen entrepreneuriat seeni projet ñu war ko mëna am lo xamantene mo moo leen di ci financement motax ñu né comme que lolu nonu lu important la ndax askan wi moom

li nga xamante ne mooy opportunité yi nga xamante ne am na ak li nga xamante ne mooy yoon yi ñu war a mën a jaar ba projet yooyu ñoom bu ñuy commencé financement rek ñu pare mën a dugal seen kayit bu ñu dugalee seen kayit ñu war a mën a def too toog xaar rek ne damay dem entreprise mu recruter ma da nga toll foo xamante ne tey war nga mën a am xalaat gis ne war naa mën a yëngu ci liggéey bii nii nga liggéey ci am lu la gunge ndax xaalis bi moom mooy problème mu ñëpp kon boog boo amee ku la jàppale donc dafa bi ci loolu tey ji moo waraloon bés bi pour woo askan wi ñu mën am information yu mën a préparer waaw léegi nag liggéey boo gis nag pour mu am euh, jeexintal bu baax dafa laaj ñu topp tey jii nii déjà ñi fi présent ñëpp am na liste boo xam ne dañ ko ubbi pour formation yi nga xamante ne war nañ leen ko mën a defal bu ñu amee opportunité formation woo leen ku ci nekk ci soxla bi nga am ñu gunge la ba nga xamante ne di nga bénéficier wu ci formation bi en même temps ci par rapport ak experts yi liñ fi jotal leeral di dineen ci jël loo xamante ne ñoom ñooñu ndaw ñooñu noonu ku ci nekk projet bi nga am bu ci yoon ñu teg la ci yoon gunge la ba nga xamante ne xaalis yi di nga ci mën a def sa liggéey euh, am suloo suturlawoo ba pare nekk ci leneen loo xamante ne doo tal yenn jot gu bëri waaw liggéey bi day continuer accompagnement bi buñ ko defee def suivi bi liggéey bi dafay continuer ak ndaw ñi ndax dina am ay tee débat yoo xamante ne dineen ko organiser ci yenn secteurs yi gën a ñaax ñooñu noonu te ñu ñëw tey tamit dañ leen demander ñoom tamit buñ demee ci seeni i gox ñoom ñu jàllale information boobu xibaar bi gën a jàll. tey jii ki wax DER rek expliqué na ne waay bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo gën a néewle ci ñu bénéficier wu ci financement yi kon ça veut dire ko kon ñu bëri kon ñu ngi toog te toog bi waru leen waroon nañu mën a dem jug dem moo tax donc duñu bàyyi di dineen ci topp ci kaw li nga xamante ne ñun suñu leader ci loolu la nekk topp ci muy président sa Seck muy lan di soñju di liggéey di nekk ci loo xamante ne jafe-jafe askan wi saa yu xëyee nan la ñu war a mën a def mu wàññeeku lañ tegu pour xool ñun tamit ci base bi laka lañ ci mën a def ba ñun tamit lu ñu ci war a mën a contribuer ñu contribuer ko moo tax duñu bàyyi dañuy contribuer waaw situation réew mi fii ci département bi moom euh, amuñu ci problème amuñu ci jafe-jafe ndax euh, réew mi euh, yàlla dafa def ci biir dafa am ay ndaw ñu am jom ci biir dafa am ay femmes au am ay coordonnateurs yoo xam ne ñu responsable lañ yàgg di liggéey ci développement wu askan wi ñu yàgg jaxasoo nag ak askan wi ci loo xamante ne seen i jafe-jafe ci loo xamante ne dafa leen njëriñ moo tax donc ba mburu ak soow bi amee jaxasoo ak ñoom yoo jafewut ci ñun tey nii biñuy def activité bi bañ nañ ko ba dañu woo ñi nga xamante ne mooy ñu bokk ak coalition bi invité leen ñu ñëw parce que loolu la ñu xam te it loolu mooy li nga xamante ne moom mooy Sénégal euh, booloom moom mooy suñu doole te it booloo boobu noonu mooy gën a boole def jàmm ci réew mi te jàmm bi ñun moo ñu ñor. Aujourd'hui euh, on a organisé ce forum dans le cadre de la sensibilisation parce que qui connaît le parti Rewmi et surtout sa jeunesse euh, connaît le parti Rewmi comme étant un parti qui compte toujours le développement. Euh, un parti qui essaie tout le temps de mettre en place des activités qui permettent de contribuer au développement, surtout au niveau local. Et c'est dans ce cadre-là, puisqu'il y a un fonds qui a été mis en place par son Excellence, Monsieur le Président de la République, euh, pour accompagner les jeunes et les femmes dans le cadre de l'entrepreneuriat. Et puisque ces fonds existent au niveau de la DER et dans d'autres programmes, donc en tant que jeune, on est chargé de relayer ces informations pour mieux sensibiliser et permettre à ces cibles de mieux comprendre quelles sont les opportunités et quels outils ont été mis en place pour qu'ils puissent en bénéficier. Euh, après cette activité, il y aura un accompagnement. Il y aura un suivi. Euh, on va organiser des débats dans les zones pour mieux sensibiliser les jeunes. En même temps, ceux qui sont présents actuellement, à savoir les associations et les mouvements, ils vont relayer les informations dans leur quartier, euh, dans leur zone, pour permettre aux autres jeunes qui n'ont pas pris rendez-vous à cet événement d'aujourd'hui d'avoir l'information nécessaire. Et par rapport à cela, et compte tenu des exposés des experts qui ont été là, on va essayer de saisir les opportunités qui existent et mieux sensibiliser euh, les autres jeunes et les autres femmes, puisque c'est eux les concernés. Ce n'est pas tout simplement les politiques. Les politiques n'ont que les informations, mais c'est à nous de relayer les informations nécessaires. Actuellement, au Réumi, on n'a pas de problème parce qu'on a toujours été au contact direct avec la population de Guédiawaï. Au Réumi, on a des responsables, des responsables des acteurs de développement. On a des femmes qui sont dans le développement, des coordonnateurs qui sont dans le développement et qui ne cessent de se soucier pour l'intérêt des populations. C'est pourquoi ça n'a posé aucun problème quand il y a eu le mot Axo, euh, parce qu'il fallait suivre le président Idrissa Seck dans son dynamisme. Et son dynamisme, c'était quoi C'était de contribuer dans le développement de son pays. C'était dans cette situation actuelle, on a besoin d'une stabilité, que ça soit économique, que ça soit pacifique. Donc c'est à nous de serrer les mains, c'est à nous de nous unir pour mieux contribuer dans le développement de notre pays. Et nous, on a toujours été dans ce c'est pourquoi ça n'a posé aucun problème euh, de travailler avec les alliés. Et d'ailleurs, à cette rencontre, les alliés sont présents, on les a conviés et ils ont pris part à ces rendez-vous.